فلا jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet 24actu point com dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaaru màggal Touba édition 2018 benn fan ci weerub safar nag ko xalif général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké digle woon noonu la ko yoonu murid amale fii ci biir jumaa ju euh, sell ji ci fanaane jàng alxuraan ak ay xasaayit waaye def ay bernde moom Serigne bi sax yëkkati na ay kaddu ci tëjkal li nga xam ne moom moo di lee bis boobule di benn fan ci weerub safar ginnaaw bi itam safar bi ñu ngi wéy di ko màggal ci àdduna wërngal këpp rawatina ci diwaan bu njaareem foofale askan wa yëpp dañoo génn ànd ak meer bi di Malick Fall dox ca biir dëkk ba daal di wër daal di ko tëjëf yi nga xam ne moom moo di ca jumaay njaareem ja daañu teewlu maire bi ci biir euh, xibaar yi caravane màggal Touba ñu tudde ko sur la trace de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul boobulee caravane nag jurub ñetti fan la ñu ko doon amal dem nañu ci dëkk yi nga xamante ne ni moom moo di Asa Jolof waaye tam fi nga xam ne moo di Touba Diyoli ak Touba Ndindi foofule nag lépp loo xam ne nii ay jeexit la yu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul génn nañu ko fa daañu ko teewlu ci biir xibaar na mu gën a yaatoo ci benn fan itam ci weeru safar ci digle woo ñu daal di bale dëkk bu sell ba mu set wecc ba kenn dootu fi gisati leen pluy nuroo ab taq-taq loolu nag maa ko tegoon ci loxo yi ki nga xam ne moom moo di Baye Fall yi jëwriñ jii di Serigne Fallou Fall te jëwriñu Serigne Cheikh Jëmbu Fall nag yëkkati na ay kàddu ginnaaw mbale ko teewlu mbokk yi lii ay ponk la ci xibaar yi soxal màggalu Touba ak yu ni mel bu nees kiis bu ngeen taaxeerloo ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce jërë ngeen jëf ah, mbokk yi ñu ngi leen di sant leen gërëm ci bàyyi xel gi nga xamee ne ñu koy bàyyi xel leen ndokkeel waaye itam leen ziar ci weeru safar wi nañ leen ko junjee woon ci biir xibaar yi ci biir yaatal gi tam noonu la ñu koy daal di doore benn fan ci weeru safar di bis bopp xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dafa joxe woon ndigal ci mbooleem taalibe yi fépp fu ñu nekk ñu daal di ko fay màggal waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo fare fii ci biir dëkk bu sell bi ci Touba nag nag ñëpp daal daje si si jumaa ju sell ji daal di fi jàng alquran daal di fi jàngi xasaayit waaye tam def fi ay jaamu yàlla ak ay bernde noonu yi mu ko digle woon tam noonu la ko taalibe yi wuy see ah, ci biir jumaa ju sell ji daal di koy defe noonu moom sëriñ bi sax ginnaaw bi fajar jotee nag yëkkati na ay kàddu yu soññee itam yëkkati ay kàddu yoo xam ne dafa jëm Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul kilifa yoonu murid yu takkoo takku nag teewoon nañu fa ku ci mel ne Serigne Amsatou Mbacké bu Serigne Sohaibou ak Serigne Abdou Samad ñoom ñooñu teewoon nañ ci jotaay ba ñu teewlu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général des mourides addaala yàllaaw waaye dafa am bu koy lëkkaleel nag sant ak soññu sant nan sax ci sant sax ci soññu moom baat boobu soññu laa koy lëkkaleel saa si sant mm-hmm. nekk si diggante boobu rek mm-hmm. loolu rek la alhamdulilah dan sax ci sant mm-hmm. sax ci soññu nag suñu bopp ci moom rek la tabarakallah tabarakallah tabarakallah Mbacké tabarakallah jërëjëf jërëjëf Mbacké jërëjëf jërëjëf jërëjëf sax suñu bopp ci loolu mm-hmm. yaqin la ci ne mm-hmm. yiwu àddina ak yiwu àllaaxira mm-hmm. sikki sàkk néewuti mi ngi ci biir loolu sikk sàkk néew ji soññu suñu bopp ci moom yiwu àddina ak yiwu àllaaxira loolu rek la def mooy moom yem ci kàddu yooyu rek. waaw kàlla waaw kàlla doy na sëkk doy na sëkk Mbacke sant sant nañ ñëpp ngi lay sant sëriñ bi ñëpp ngi lay sagoo ñëpp ngi lay béggee ñëpp ngi lay ñaanal Mbacke fàggu la mboolem ku fi teew rek yàlla jéggi la say bàkkaar te defal ko defal na ko rek. Ah, dañuy ay ndol la la ni yàlla yëmul fenn te sëñ sëñ sëñ yëmaliwul sëñ ginnaaw bu ñu jógee ci safar ji ñu dëkk bu sell bi Touba dañuy ànd dem ba diwaan bu Njaareem foofee itam ah, ni ñu ko màggalee ci dëkk bu sell bi Touba noonu la ñu ko fa màggalee at mu jot bile moom moo cee juróom wala jàpp juróom-benneelu at ba waa dëkk ba saa yu benn fan ci weeru safar jotee dañuy àndandoo ñoom ñëpp dugg ca biir dëkk ba euh, sar daal di jàll fi nga xamante ne ni moom moo di ca jumaa ji sell ja daal di fay def ab waxtaan wu yaatu fàttali leen waa tam itam ñaaxante ci ak taalibe ki nga xam ne nag moom moo di maire bi di Malick Fall ma nga yëkkati ay kàddu di fësal ne bisu benn fan ci weeru safar waa njaareem gépp ñoom ñoo ko war a jàpp def ko seen bis boo xam ne dañuy mel ne waa ndar bu ñëwatee ñëpp seen xel dem ci dig diwaan bi nga xam ne moom moo di diwaan bu moom Malick Fall ginnaaw dox ba yile kàddu la yëkkati ñu teewlu الذي في كل سار وفي سفر حماني على ماهر مع الحبس والسفر depuis 1921 ba 22 mu sant kontaan lool oo mbokk taalibe yépp fii ci njaareeb mu ne leen ma sant le ne leen ma sant la sunu borom fii la ko waxe woon ci bàkk bu tedd bii kon tey bis boobu bu ñëwee daaw ba ren at yi fukkeel at ci ren sëñ Seex jërëjëf njaag ñu nga àndal tey def ngeen lépp liggéey liggéey bi yore jikko taalibe kenn ci yéen jéemu cee feeñ jéemoo leen sax wax yàlla neen yàlla fay ngeen organise ko tey jii ñëpp ñu xool la sëñ ba waxoon ñu commencé bis bi tey jii muy premier safar waa njaaram yëpp génn di sant sëñ bi di ko sant ba ñépp diñ ci roy kon yéen jërëjëf mbokk taalibe yi kenn amul seen fay man mi nga xam ne may meeru njaareem di meeru dëkk bi man de duma dolli di sant sëñ Touba ndax maa gën ci meeri àdduna bi ndax meeru njaareem fi sëñ Touba def 15 ans jël jumaam ji xot tegal ko boppam posel ko julli ci jël jël armeelam yii defar ko ni képp ku fi xëyee fanaane xëye képp ku fi képp ku fi yendu fanaane àjjana ma nekk ma nekk meeru dëkk boobee nekk gën ci meer yëpp wan man sëñ Touba man xaw ma ku warta sant sëñ Touba man Maly Fall war naa sant sëñ Touba ndax li ma nekk yombul de meer yomb na waaye meeru njaarim du yombul jërëjëf sëñ Touba di seen sant ñëpp te bis bii nag nañ ko téye fonk ko ndax njaarim nag danoo war a fonk sunu bis yi ndax nag sëñ Tuubaa dañoo defal lu mu deful kenn te ñun nag dañ ko war a xam booloo nekk benn di fonk bisi di ponk sëñ Tuubaa la waa Njaay walla Ndar def ñaari rakk yi def ba buñ ko def àdduna bépp fekk si leen ñu nekk bis sëñ Tuubaa waa dakaar def ko bu buñ ko defee àdduna bépp fekk leen waaye ñun waa njaareem nañ nekk benn ba def suñu bisu xam adduna bi por euh, bu ñu jógee ca diiwaan bu njaareem ñu daal di dellu si waat ci dëkk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bii di Touba euh, caravane màggalu Touba nag xam ngeen ni ab xalaat la woon boo xam ne nii ñi ngànk li nga xam ne mooy màggalu Touba ñoom ñoo ko yëkkati woon di dem ci dëkk yi nga xam ne ni sëriñ bi dafaa jaaroon leen gën a xamale kan mooy sëriñ euh, Touba boobaak léegi juróomi at la jàpp juróom benn ren ji nag ki nga xam ne moom di porte parole u xalifa général des mourides di sëriñ Bassirou muy fësal ne bu ko kenn tuddee ci caravane Magal Touba waaye nañ ko tuddee sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam dox ci jeexit yi ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul niki noonu tam noonu la ñu ko amalee ren jii ci diirub ñetti fan dem ci ay dëkk yu fasantikoo fu ci mel ne Caamen Jolof waaye itam Afe Jolof dem itam Duyooli ak Touba Ndindi fépp fuñ fa dem itam askan wa génn nañu daal di euh, dajeeloo daal di déglu li nga xam ne moo di waxtaan yi fa kilifa yee def euh, daal di ci teewlu résumé bi nga xam ne def nañu ko ci. kuréel gi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci màggalu Touba nag rawatina pàcc bi nga xam ne nii moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu communication nag defati nañu li nga xam ne moom la ñuy woowee caravane màggal Touba te Serigne basir Mbacké Abdoul Khadr kasi ni ay kàddu di fësal ne nañ ko tuddee sur le trace de Cheikh Ahmadou Bamba loolu nag atum ren ji ñu ngi ko amale ci ñeenti dëkk Afa Jolof Thiamène Jolof Diyoli ak dëkk bi la Dindindi fépp fu ñu ci dem nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk taarixub dëkk boobule daañu waxtaan ci diggante boobule dëkk ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi nga xamante ni moom moo waral màggal gi waaye itam mbooleem dëkk ba danañ daje ca penc ma su ko defee ñu daal di waxtaan ci diine waxtaan Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ay jaar jaaram fu ci mel ne Thiamène Jolof waxtaane nañ diggante Sidi Hadji Malick si ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boobule caravane nag ñu ngi ko tëjee fi nga xamante ni moom moo di Diyoli nii daal di tënk li nga xamante ne ni moom moo di diirub ñeenti dëkk yooyu la ak seenub taarix ci aw kayit waaye tam ci ay vidéo mën koo tasaare ba njëriñ daal di gën a mën a feeñ loolu le nag ah, kilifa yi daal ciy kontaan bu baax a baax di fësal ne daal liggéey bu ñuy wëyal la ndax bi le at moom moo di juróomeelu at bi caravane boobu li daal di am ci at yu njëkk yi sax daana dem ci dëkk yu gën a sori waaye at yu mujj yi ñu ngi ko yemale ci dëkk yu gën a jege ngir njariñ li daal di gën a mën a wasaaro bale dëkk ba mu set wecc bokk ci aaday safar saa yu benn fan ci weerub safar teroo ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi génn daal di bale li nga xam ne moo dëkk bu sell bi di Touba ci jamonoy Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ba nëga ni ni ki noonu itam euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacke noonu la ko yeesalaate jox ndigali ki nga xam ne nii moom moo di Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif mu daal di koy joxaat euh, ndigal li ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di Baye Fall yi xalifa général des Baye Fall jëwriñ ji di Serigne Fallou Fall nag ànd nag mbooleem Baye Fall yi waaye itam taalibe yi ñu génn daal di bale fi nga xam ne moo dëkk bu sell bi Touba ba fi mu nii ab bant mënee su ko fee for di séentu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gani màggal kon dañuy teewlu Serigne Fallou Fall di jëwriñ ñi Serigne bi nag Serigne Cheikh Jëmb Fall mooy jëwriñ ji noo yi nag tàmm nañ ko tey jii alxames fukki fan ak benn ci nag ci weer wolof yi moom la benn fan safar sëñ na nag yaakaar maam Cheikh Fall liggéey bi ñu li bëgg ñu def ko ba mu mel ne ko gënal sëñ bi li mu bëgg bu ko amee rek li bëgg na am ko ci sëñ Tuubaa bi nu jëm itam nu ñaan sëñ Tuubaa dimbali nag ak jàmm te dimbali ba ni ñu koy waajale mu boole nu ay xéewal ak wér ak fekkee ak tal ba yàgg ko fekkee lool yàgg ko def ni ko borom bëggee rek télé bi Tuubaa TV it ñaan sama borom yi yokk ko bu baax a baax a baax ba mu gën a ma liggéey sëñ Tuubaa ba fu sëñ Tuubaa nekk rek mbaa ak njabootam mu àgg fa leen ko woon mbaa di leen soññ donc noo ngi soññ tey soññ ñëpp jëwriñ ji nag mu ba lu waaye di joxe boo ne boo ko joxee dana dana ko joxee sëñ Moussa Fallou mooy jëwriñ ma nga foofee ci buntu buntu ci àndal liggéey bi noo ngi fii ci marché Ocass fas du nga ko bàyyi mukk mukk te àggul mbaa ñëw jàngeen jëf kon ko sa yaakaar na ci Serigne Fall si maam Serigne Fall nee na sañ jëmm nee bàyyi loo jàppoon nañu ci liggéey bi ndigal bàyyituloo fenn nañ ci góorgóorlu baax te xam ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy mayee bu doon lu ñuy mayee duñu fekk dara kon ñu may ko ñeneen ñun ñun jiitu woon waaye lu ñu jaayee fenn du jeex mukk lu waa jënd yaa ko moom kon nañoo leen moom yéene na ko ñëpp ñu ñaan sa borom defal ak ak wér nag ak gudd fan kaan ak jàmm xéwalu yaar ñu jëkkoo liggéey bi yàggoo liggéeyal sëñ Tuubaa ak Serafal jërë ngeen yéen waa Touba Téye jërë ngeen jëf murid ndigal la ko na ñëpp ñëw ci liggéey bi tàmm nañ ko àggagul xaajagul sax bu leen bàyyite àggul jërëjëf rek mbaa mu jeex buñ jógee ci wàllum ceet ak celal dañuy àddu jëm ci wàllum wér-gu-yaram jëm dëgmal màggalu ko Touba édition 2018 Serigne Ahmadou Badawi Mbacke di kenn ci njabootu Serigne euh, Fallou moom nag ca Touba Ndindi euh, fal daal di amal li nga xam ne moom moo di ab bërëbu fajukaay bu yaatu boo xam ne nii euh, mën naa jël capacité bu yaatu ci ñoo xam ne nii seenu yaram dafa sutante am defee mbir mi ni mel ba noppi nag ñi nga xam ne ñoom ñoom ŋànku wàllu wér yaram gi ci diwaan bi demoon nañ fa di ko visité ji ña ngay fësal ne sax jamono ji bërëb boobu boobule mënees na koo def ab centre de santé ndax ndindi dafa yaatu ginnaaw loolu te askan wa fa nekk soxla ay bërëbu fajukaay te mbir moom le fas yéene nañ cee dox ay jéego bañ mën koo jëfandikoo ci jamonoy màggal tubaa ñu teewlu ko الله la إله إلا هو الحي القيوم ginnaaw bu mu dugalee loxoom ci lu jëm ci wàllum njàng meek njàngale mii ba tabax daara ci Ndindi daara joo xam ni ni ma ngay jël ci lu toll ci junni ak ñaar téeméer ci ay élèves yoo xam ni dañu fay jàng sa fay benn dërëm jamono ji nag mébétub sëriñ Ahmadou Badawi Mbàkke moom moo nekkoon tabax ab bërëb bu fajukaay foofa la ci Ndindi mëbët moom mën nag mel na ni sotti na ndax bâtiment bi nga xam ne ni moom dafa doon tabax jamono ji mbir mu ni mel ci wàllu wér-gu-yaram nag tax ki nga xamante ne nii moom mooy docteur Mamadou Dieng di médecin chef district sanitaire bu Touba ànd ak Balla Mbacke bu mi nga xam ne moom mooy médecin chef bu région bu Njaareem ñoom nag ñëwoon doon visité fi nga xam ne moom moo di bâtiment bi waaye bi ñu ñëwee seen xel dafa dal ci li nga xam ne nii moom moo di jëf jilee ba tax mi daal di fësal ne bërëb bi ab centre de santé lay doon ndigalu suñuy kilifa muy le ministre de la santé le directeur général la santé ak kilifa yi nekk ci ministère ngir ñu ñëw nemmeeku barab bi xool ko xool li muy laaj ak ban taxawaay lañ ci war a am ngir gën ko jàppale ci lii nga xam sumb na ko te jagale ko ndimbal loo xam ne da ko jëmale ci askan wi fi féete ñu ñëwoon nag nemmeeku si ko gis ne euh, hôpital bu am solo la bu mag moom dafa jàpp sax ni post la tabax waaye bi ñu duggee ba saytu ko gis nañ ne mën na taxaw taxawaayu centre de santé de niveau maanaam bérébu fajukaay boo xam ne Euh, nekk na ci diggante poste de santé ak hôpital ndax bi ñu xayma bâtiment bi ak locaux ko yéeg mu fi def yëpp jàpp nañ ne suñ ci ñëpp jàppee ministère bi jàppale ko ci euh, dinañ ko mën a doxal noo xam ne dina taxaw taxawaayu centre de santé ngir mën a dékku population yi nekk fii daan jéggaani ji ay paj di dem ba biir tuubaa di wuti paj moo xam ne xëy na dafa amul fii ci Ndindi ginnaaw ba ñu amalee seenu visite ba noppi nag ki nga xamante ne ni nag moom moo di docteur Dieng ma ngay fësal ne jamono ji sëñ Ahmadou Badawi Mbàkke wàccoona ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wér-gu-yaram ci réew bu Sénégal waaye tam ak wi kon jamono ji nguurug Sénégal rek moom moo ci des ngir mu daal di indi jumtukaay yi nga xam ne nii war naa am ci bërëb bu fajukaay bi léegi waaye tam indi fi personnel bu doy boo xam ne nii bërëb bi dina am wàccuwaayam ñu liggéey ànd ak médecin chef de région bi pour fexe nu ñuy fexe bu bërëb bi nekk béréb bu am njëriñ ci population yi li mu laaj ci ay médecins ak ay matériel loolu yëpp dinañ ko xayma jébbal ko suñuy kilifa ba pare soññu leen ci ngir ñu mën jàpp ci liggéey bi. kii di Balla Mbacke Mbuub di médecin chef bu diwaan bu Ndiarème moom di fësal ne tabax bërëb bi lu am solo la waaye itam andi aw yoon woo xam ne moo fa jëm loolu itam dinañ ko boole ci li nga xamante ni moom moo doléance ñu war a jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yi. demee rek wax nga dëgg ñëw xam ne xaw naa xaw naa jafe tuuti ndax amul tali bu fi ñëw waaye yaakaar naa dana war a am tali bu mën a dagg tali bu mag la waaye loolu nag xam nga foog ñu wax ci kilifa yi waaye rapport bi ñu def daal gannaaw bi nga xamee ne bi na li fi jëm nag dinañ ko ci boole ci nga xam ne mooy moo koy war yokk mooy tax population yi mën koy boobu la sax am na ay architecte yoo xam ne ni ñu nga jógee ba diwaanum Dakaaru ñëwoon ngir daal di seet si li nga xamante ni moom moo di liggéey bi ginnaaw ba ñu wisitee ba noppi yile kàddu la ñu fa yëkkati. amul euh, maanaam bu ñuy wax lu mucc ayib yaakaar naa ne fekk nañ ko bétaal fo fekk nañ ko fi biñ ko bu ñu ci gisoon loo xam ne euh, sikk la wala lu jaaru yoon it dañ ko dañ koy wax comme ni ko sunu profession digalee moo tax biñ ko xool laal fekk nañ ci la gisuñ ci loo xam ne laal lu mucc ayib laal la waaw. tëjtal visite ba ki nga xam ne ni moom moo di Serigne Mbacke Abdourahmane di borom xam-xam bu nekkee ci dëkk bu sell bi ji Touba ma ngay fësal ne jile jëf nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi war nañ ko xool bu baax a baax ba mën cee roy gën a jàppale askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy dund ci biir Touba ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu njàng meek njàngale mi ndax liggéey bu toll nii ku mën a jël engagement barab beeg li ci aju lépp nga mën taxaw ngir yàlla ngir bëgg dimbali njaboot gi kooku xam na li mu doon ci li ab sëriñ di teg kii diine mooy ku war a taxaw nit ñi war leen a jëmi kanam fexe bañ xam seen diine waaye fexe ba ñu am jàmm ba mën a jaamu yàlla. buñ jógee ci wàllum wér-gu-yaram ñu wax ci wàllum uh, kaaraange uh, ci lu jëm ci wàllum l'accident yi dañu ko daal nemmeeku lu baree bari ci jamonoy màggalu Touba. tax nag ak kuréel jóg daal di tudd Fadal prévention routière ci ndigalul Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr ñoom njaw loolu nag raal di fas yéene jóg rek di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si di dem ci garage yi waaye tam lépp loo xam ne ni ay tolof tolof yu nekk ci yoon ñu fas yéene koo laata nit ñi di jóg di dëgmal si uh, Touba. ki nga xam ne moo di mooy euh, njiit la nag di euh, Modou Sall Nayleer ma ngay fësal ne kilifa yi war nañu tëj autoroute Ila Touba bi euh, bu 18h jotee waaye di ko tijji bu juróom-ñett ci waxtu ci suba jotee ndax buñ ko tijjee yenn ci ay jëyee mën na faa am ndax safari si duñ fa daw ndànk ñu teewlu ko. dal prévention nu ñu daan waaje rek la ñu waajalaate màggal gi nga xam ni mooy ñëw ndax gis nañu ne màggal gi waxtu wu nekk muy ñëw dañ koy waajal waaj bu mucc ayib ci ndigalu sëriñ bi donc matuwaay yu jëloon rek jël nañ matuwaay yu ko ëpp ngir la amoon bañ a amati donc ndax ci weer yi ñu weesu waxoon nañ ko waxoon nañ ko kilifa yi lu mel ni autoroute bi nga xam ne bëgg nañ ko ubbi waxoon nañ kilifa yi woon nañ leen ni leen autoroute bi koy ubbi nañ ubbi benn bi te nañ koy ubbi heure di ko tëj heure parce que bu ñu ko deful lu ñu doon bañ ci yeneen yoon yi rek mën na am ci autoroute bi ba ca toppite mooy kilifa yi nañ jël ay matuwaay parce que gis nañ ne nawet bi am na yoon yu bari yoo xam ni ndox mi yàq na ko def na ci ay kàmb kamb yooyu nag bu fekkee defaruñ ko bu buñ demee ba nga xam ne période màggal gi jot na oto yi teggi bi ñuy teggi mën nañu tax bu loolu mën na indi ay accident kon loolu war nañ ko defar aussi signalisation yi itam panneau signalisation yi ci tali yu bari bi defee constat xam nañ ni panneau de signalisation yi manqué na parce que doodaan yi doo ciy egsi doo xam ne doodaan ci nga egsi loolu nag bu fekkee jël ñu ciy matuwaay lu am itam booy boo ñu xam ne responsabilité kilifa parce que xam nañ ko te wax nañ leen ko Fadal Prévention nag ci wàllu sensibilisation doon def ci wàllu affiche ci wàllu dem ci garage yi ci wàllu waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñooy conducteurs yi danañ fas yéene defaat noonu pour sensibiliser leen lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi nan lañ mën a def ba buñ sonnee ñu noppalu fexe ba nga xëy ne du ñuy wuyu téléphone bu ñuy dawal fexe ba nga xëy itam bu la ñooy départ itam danañ def entretien ci seeni i lu jëm ci panneau yi lu jëm ci lumière yi stop yi yëpp ñu xool ko ba nga xamante ni danañ mën a ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm ñu ñoom gunge leen ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi nañu fexe bay salon saloné yoon yi jël motaar yi ñuy saloné yoon yi ci waxtu wu nekk 24 heures sur 24 parce que bu ñu ko defee rek danañ mën a gunge conducteurs yi ci yoon yi ba nga xamante ni bi képp koo xam ne jalgati nga ko de la route ñu mën la gaare jàpp la teg la ay sanctions parce que du ñu bëgg itam aussi ñuy jalgati code de ci anam bu mel noonu ba nga xamee ne dañuy lor ay bakkan parce que loolu rafetul jaaduwut lu mel noonu nag kon état bi am na ci responsabilité kaaraange gi am nañ ci responsabilité ñuy ñaan itam nañu fexe ba jël ay giri ñu jël leen pour yóbbu leen ci yoon yi nga xamante ni fenn fu nekk dañ fi wut check point ay giri yoo xamante fu oto paane giri bi dana mën a ñëw ci kàddu yi Modou Sall nay leer yooyu ci la ñu duggee ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci mbënd mi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko jamono yi yëpp ci biir dëkk bu sell bi di Touba jamono ji bu ñuy waaj màggal gër am na ñoo xam ne ni seenu fit ma nga gis seen digg boobu ñooñu le bokk na ca waa ndaamaatu ndax jamono ji le ndox ma nga xam ne moo fa taawoon ñetti weer ca ginnaaw ba nëga nii àlla ngi ne seen si ko ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Kara Mbacke nooré ñi nag moom moo daan ànd ak ay taalibeem moom le waaye ba tey ji kenn gisagu ko te suñu digganteeg màggal gi ay fan yu new ñoom ñoo ci des askan wa nag jamono ji ñu nga yuuxu kàddu yu wàllu ngir ñu ñëw jàppale leen te moomu leen ndox bañ mën a am foo xam ne ni fa la ñu dalal seeni gan ñu teewlu leen xamaatu moom comme d'habitude comme ni moom meloon dañuy jàpp ne saabu ne rek day gën di yokk li ko waral nag mooy euh, kii bi nekk Kër Ñang nga xamante ni moom mooy capté ndox mi saa bu feesee lu ci ëpp fii la koy sànni ci ndamaatu ci xam nga boo xoolee léegi nu dugg ci safar bi xam naa suba incha allahu rabi yàlla mën na ko dogal ca ku ne xam na ni murid moom mi ngi waaj màggal gi ci lii ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñu ngi koy dundaale mu metti lool dëgg la nag mënuñu ci dara li nu mën daal mooy saa ne daal nu woo comme presse mu ñëw nii nu wax suñuy doléance comme nu mën nu cee jàppale ñi ngi lancé appel daal képp ku nu ci mën a jàppale nanu ci dimbal parce que ndaamaatu sonn na ndax bu ñu demee bay toog di dégg nu naan am na directeur sàngam nu naan ndoxum ndaamaatu ma na ca loolu wax dëgg yàlla amut bu ko waxee Euh, non du ma cité kenn nag mais am na ku ko wax ni euh, ndoxu ndoxu ndaamaatu jeex na ca loolu bu ko waxee li mu wax dafa juum wala ña ko jàllale information bi danoo juum ndax ndaamaatu ko fi ñëw taxaw fii naan ndox mi dafa jeex dafa jeex da jeexloo seenub xol ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ci mitit ak ay feebar ak ndox moo xam ne xuus guddi xuus bëccëg ca ku nekk sa kër la am boo sañoon doo génn sa kër ngi ñaan daal ñi nga xam ñoo na ko mën a defaral nan ñëw defaral comme que travaux yi commenc woon na nan indi bu doole bi ñu fi indi nu jëlee fi ndox mi nu mu gën a gaawee defaral na ko moo gën nekk di wax naan ay ndox ma jeex na ca ndox mi jeexul waaw sëñ Modou Kara ñu ngi koy xaar ndax euh, bu fekkee day euh, mi ngi diglu ndigalit it ndigal yàlla na ko yàlla na jóge fi mu war a jógee dem ci moom mu ñëw ndax euh, moom day saa daan nekk ci jafe yu mel ni moon daan génne moo daan yabal ay doomam ak ay taalibeem ñëpp nu ñëw fi génne ndox ndox mi raxas kër yi ba mu set ñi ngi koy sàkku ndimbal daal sëñ Modou Kara bu fekkee dégg nañu comme ni mu ko daan defee na ñëw rek dimbali nu ci ndax moom rek lañ ci yaakaar ndax moo gën ñi nga xam ne ñi ngi toog naan ndox mi jeex na ci ndox mi jeexul bàyyi nu nii ñu ngi koy ñaan daal bu fekkee dégg nañu nanu ñëw dimbali comme nam nu daan dimbalee ndax moom rek lañ ci yaakaar ginnaaw yàlla maa sëñ Saaliw ji tey ji ci juróom benni ajjuma yoo xam ne ajjuma ji nu weesu mooy juróom benneelu ajjumaam yuñ ci julliwut ajjuma dafa tëj fees dell kenn mënu ci julli te demoon nañ bay dégg sax am ñu naan ndoxum ndaamaatu dafa jeex maa ngi koy déggandee man gisuma ko ko waxaay maa ngi ko ba dugg saam nopp tal li féete tali bi fi nii lu ko sut féete nañu ci boor bi kër yi fees na foos bi fees foos yi yëpp dafa fees dell ak jumaa ji màggal gi agsi na fii ni toll nii ñëpp ngi jaaxle ngir ko am gan foo koy xalaat. jërë ngeen jëf mbokk yi foofulee fa la ñu daal xibaar yi nga xam ne moo soxaloon màggal Touba édition 2018 di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen bàyyi xel waaye itam di gërëm waaye xarala yi nga xamante ni ñoom la àndaloon ba ngeen mën ñoo teggat ci cadrage bi Serigne Ousseynou Mbodj ñoo ngi leen di gërëm di leen di dajee suba ak jàmm jërë ngeen jëf